asalaamaaleykum àdduna wërngal ñëpp nuyu nañ leen ziar leen ñaanal leen sàkku bu baax ngeen seen leen koo xam ne que njëriñ leen ci seen tuddi ñaan yàlla ñu bokk gis ko ci tegtal indi koo xam ne que miin ngeen ko lool ci tegtal ñu miin ko lool ci tegtal ndax émission day yàgg ab xalif général mën na koo seetaan ab euh, kilifa diine mën na koo seetaan kilifa aada mën na koo seetaan président de la république mën na koo seetaan premier ministre sax mën na ko seetaan président Ousmane Sonko seetaan ko seetaan président Diomaye Faye ak ñëpp ah. kooku di kan docteur Maodo Ndaw docteur Maodo Ndaw borom Thiès nga xam ne dafa yor bagage yu baax euh, yoo xam ne wóolu nañ ko mën na ñaar fukki at mu nekk biir kër sëñ Mbaye Sy Mansour ca Tivaouane mën na ñaar fukki at mu nekk biir kër sëñ Abdou Hakim ca Touba. Euh, nekk fu bari foo xam ne que fu màgg la te foofu caaxaan du fa dugg kon du fa dugal caaxaan. te nag euh, muy pommade miracle ak sirop bi ak yeneen ak ni mu ko dikkee kon kii euh, tànneef la du koo xam nag euh, day waxew fit daal ku ragal yàlla la te maandu te yem ci lim lu mënul mu maandu ci docteur Maodo ndaw yaa ngi ci Tektal TV sa télé émission Tektal sa émission luy nuyu ak àdduna wërngal këpp bi lay seetaan ci diaspora bi te nangu na sa xam-xam ak sa ragal yàlla macha allah. jërëjëf Cheikh ñu ngi sant yàlla di julli ci seydinaa Muhammad sallallahu alayhi wa ak ay di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi di nuyu euh, mboolem téléspectateur yu Tektal TV Tektal TV mm. ah, di la nuyu bu baax di nuyu sa technicien yi nga xam ni macha allah ñoo lay jàppale si liggéey bi mm. di nuyu aussi suñu wëllëree bi nga xam ni tey moo ñu may opportunité mm. pour ñu ñëw fii ci maris defe fii émission bi macha allah euh, Serigne Cheikh Mbodj di ko nuyu di ko ziyaar bu baax di ko ñaanal yàlla. suñu seex boo dinañ ko kii sax déglu mu waxaale ah. incha ah, allah incha allah jërëjëf euh, docteur Maodo Ndao euh, borom Thiès kon euh, fii lay def émission mais Thiès mooy adresse am adresse Thiès Thiès fan ci Thiès. HLM route de Dakar. HLM route en face bureau HLM. en face bureau HLM. Mhm. incha ku ñëw fekk fa. Mhm. kon Birame. bindal mer foofu bu dee mënul bindal boppam paa bi tamit ba di neexul ki wax ci saak bu noppi ki dox ci mbedd mu dugg ci biir Tektal mooy daw ci biir Tektal TV numéro docteur Maodo Ndao da ngay def 77 713 41 03 77 713 41 03 beneen bi 77 505 29 51 77 505 29 51 docteur Maodo Ndao nekk ci Thiès. nga dis ko soxla lu mu ci mën mu def ko leneen ñu bàyyi yàlla mi xam tëlewul dara hmm. te mën na lépp euh, kon bu jàll ci biir mbir mi gën a yaatu bu baax a baax docteur Maodo Ndao euh, yow da nga yor pommade euh, miracle bu amee njëriñ hmm. mais balaa boobu li la dugal ci mbir bi histoire baatin bi nga xam ne ak sa waajur ko doon tënkal ñu continuer dugg ci pommade bi nan lay demee bii faj lu bari waaw docteur Maodo Ndao doomu nitu yàlla bu mag sëriñ Fadilou ndaw bi ne woon Thiès kat ci randu leen nitu yàlla boobu nga xam ne kenn dootu ko laajte fii ci Sénégal ak li ko wër mu xaddam si kër maam Cheikh Sidi Hadj Malick mais wëllëree si këru diine yëpp. misaal biñ ciy tënk rek mooy maam borom Touba si boppam sama waajur def na si ëttam un mois quinze jours. ndax dañoo mokk jeexal seen njàng seen sëriñ yónni leen si maam borom Touba ñu waroon fa yónni yóbbu ay téere yu sëriñ bi bindoon. sëriñ bi ne nag kii yegg ci maam borom Touba de yàlla dina def si moom mbir ñeenti taalibe lañ yi gënoon a mag si daara ji sam pa euh, sam papa si la woon ak yeneen ñetti taalibe hmm. ñaar ya ni sëriñ bi de doxu juróom benn fan ci àll bi gaynde yeeg lépp luy lore ci àll bi sëriñ ñun mënuñoo dem hmm. suñu waajur moo volontaire dem ànd ak benn taalibe ba mais yàlla dogal na suñu waajur kese moo yegg hmm. macha allah ah, maanaam ñaar ñi ñoom dañoo désisté ah, demuñu ñaari mag ñi te ñu waaw kenn ki nag xam naa bi ma ko sampaapa di nettali xale la hmm. mais leeralu ma kenn ki lu tax moom yéegul daal hmm. mais dani rek moom la yàlla dogal mu yegg euh, fa tabarakallahu defa un mois quinze jours di ko duyal sat la njàkk njàppam bi maam borom Tuubaa di duyee jàppee sam waajur mi ngi koy duy di ko barkeeloo te kenn du ko yëg parce que instant yooyu yëglu na maam borom Touba ni dugal leen ko ca néeg bee un mois quinze jours maam borom Touba woowagu ko muy duy satala njàpp gi te kenn du ko yëg nee na da ko doon barkeeloo. nee na lim fa ne yëpp fajar timis ak maam borom Touba mi ngi doon jullee in anzalnaahu fi fii laylatul xadr ak li ilaafi Quraysh ba am bis mu ko. Hmm. te avant mu mi ngi naan ndongal li daal sama gan gi ma ma nga xam ni recevoir guma ko. Hmm. alxuraan ji mu yëkkati neex na ma maam borom Touba di wax loolu. waaw léegi nag mu woolu ko jàngloo ko alxuraan comme nii boo mokkalee rek niñ lay cuqe nii fu fu mu fu mu tibb si ab alxuraan bi rek góor gi yeggale mu kontaan génne kaamil boo xam ni presque man na 70 carré hmm. calligraphie bu rafet en cuir hmm. mu woo ko ñetti yoon fàddilu mu ni ko mbàkke fàddilu mbàkke fàddilu mu ni ko mbàkke mu ni ko yelloo nga ak téere bi loo bëgg ñu ñaanal la ko xam nga mag ñi nag ñoom seen adduna yëpp liñ ci gënoon a bëgg mooy sutura parce que sutura boo ko amee rek ñàkkoo dara bi mu ne loo bëgg ñu ñaanal la ko suñu waajur nee na ni ko sutura mu ni ko am nga ko yaag sa njaboot àdduna ak àllaaxira moo koy nettali sama xarit mu naan booy paa bi yàqal na leen rek bu ni woon milliards yi fii kon tey <laughs> <laughs> ma ni ko mais sutura baax na hmm. sutura mooy lépp ah, noonu la jaxasoo nag njabootu maam borom tuubaa am na loo xam ne sax xajul ci émission hmm. parce que am na këru diine yu fi doon coow bëggoon a taal hmm. Hmm? sunu waajur la ñu woo. Hmm. mu mu dugg fa xel wa ñetti fan. Hmm. coow li fay mu dugg ci mu mu ñibbi si Thiès. am na sax woy bu ma ko woy boo xam ne peut <laughs> bu ñu ko émission bi mayee dinaa leen si mosal tuuti ci gaalu mbaax gi daal bi ma tuddee sam papa benn woy bu macha allah bu ma ko woy bayt bii ma lay wax ci biir woy wala la nekk quoi dañuy wax këru diine gi fi coow ma soona taal seen maam la woo mu dugg fëqal wa ñetti fan cooli fay mu ñibbi si Cees loolu ci biir wayu la waaw bu ko defee moom dinaa si dinaa si ñëwaat si kanam su ko defee nag macha allah kooku mooy suñu waajur si jamonoom mag ñi bu ñu xasoon a bu ñu amoon lu ni këtt ni jonn ci wàllu ñaan mm. dañuy déyante ni nañ ko wax sëriñ Fàddilu Ndaw parce que dafa amoon ijaaba lu mu ñaan yàlla nangu ko mm. xëy na nag loolu tamit si barke moo ñu topp ba garab yi nii moom macha allah lu ñu si laal rek. nit ñi nit ñi nit mu barkeel daal nit ñi di si gis seen bopp. Mm-hmm. après nag sam papa feeñu ma si dëkk bu ma demoon. Mm-hmm. Euh, benn fajar di ma sa ay ayatul quran ba mu dugg sama dënn ma ne ko papa lii mooy sa secret rek mu ni mes fekk amoon naa nattu feebar set ans yoo xam ni ay abcès à répétition ak yaram buy xaseen fu ne mm-hmm. faju naa fa man mi mënul fexe ba wér bi ma demee Fuuta nag ak entreprise Jean Lefebvre gars yi ni ma am na médecin colonel bu ne fii ci Ourossogui bu la bu la kii daal boo ko seetee di nga wér ma dem mu analyse consultation ordonnance feebar bi gën a yokk mais euh, yor yoor boobu ma defee sama ñaari rakk. Mm-hmm. bi may jàpp maa ngi sama rangoñ yaa ngi génn si biir njàpp mi. Mm-hmm. ndax damaa sonnoon ci feebar bi te demoon naa sax ba defe ne dootuma wér. Mm-hmm. mais si laa déyanteeg suñu borom subhanahu wa ni ko suñ borom yow xanaa dootoo docteur xanaa yow mënoo fekk jàngoro nga nga saafara ko te doo def traitement doo def examen mm. xanaa yow suñ boroom yow nekkoo ki ma war a mën a xetali am lu ma wëyu ni ma yàlla mën na lu ëpp lool mm. ma pare samay njàpp rek def ñaari ràkk yor yor sëlmal tàllal sama loxo ni ko maa ngi ñëw consultation si yow yaa bi yow miy dimbali docteur yow miy docteur ku lu docteur yow miy fekk jàngoro nga saafara ko doo def benn traitement doo def benn examen mm-hmm. yow mi nga xam ni si sa coobare la jaam di tawat si sa coobare la jaam di wér amul kenn ku ma mën a saafara ku dul yow damaa mm-hmm. ñaan bay jooy sama mbubb mi tooy xepp mm-hmm. ndax ci feebar bi li ci metti mooy soo mësaan sangu def saabu def ndox di selandi yaram bi day fet-feti vingt quatre heures pendant sept loolu laa nekk waaw léegi nag jour ba ma defee ñaan gi bay jooy jóg hmm. nekk samay activité ba ngoon may ñëw di wàcc di sangu si hmm. fàtte naa sax ñaan gi de jox naa ko yàlla pare naa si may ma sangu def ndox def saabu foofu doo yëg dara mais booy selandi mooy problème ma ni jas xëpp ndox mi di selandi rek yaram bi ni teg mel ni dara musuma da ma ni wéy keroog sangu naa juróom yoon bu mu kiiwee rek ma xëbalaat kii yaram bi ni tekk rek mais man sama ñaan yangu na <laughs> ah, faj bi foofu la bàyyi ko nag nga ñaan gi nangu na ci suñ borom nangul na ma. mais aussi góor gu baax Serigne Fadilou Ndaw dénk na ma secret. yooyu daal laa boole. mu hmm. mu mu mu nekk si suñu biiru si suñu biiru traitement. waajur wu jigéen wi tamit mère mère ña sa macha allah. Hmm. donc ñëwoon nekkoon bàyyi faalu góor gi liggéeyal ko ba góor gi ni ko woon yëg nga ni kontaan naa mu ni ko góor gi loolu rek laay sàkk mu ni ko loo fi am mu néew mu bari dina barkeel. barkeel macha allah mais loolu. loolu hmm. rek en tant que un intellec euh, intellectuel de niveau bac. Mhm. may def samay recherche di def samay gëstu. Mhm. def naa bientôt trente ans vingt sept ans maa ngi ci faj mi. Mhm. donc am naa si expérience boo xam ni ci recherche yi ngay def ci te aussi Issa Mbaye Samb. rahmatulahi alayhi bi muy nekk ministère de la santé. bokkoon na bi ngi doon def liggéey bu am solo parce que da doon moom li mu gënoon gëmoon mooy. médecine moderne ak traditionnelle du ñu ay noon du ñu ay wujj. Mm-hmm. complémentarité moo fa a am. Mm-hmm. daf daf doon boole médecine moderne ak traditionnelle ñuy def ay consultation gratuite à l' intérieur du Sénégal. Mm-hmm. à l' du Sénégal bokk naa si cinq tradipraticiens yi ñu jëloon fii au Sénégal. te loolu macha allah dañu si doon jëlee ay xam-xam yoo xam ni ay essence yoo xam ni macha allah mais. yàlla dogal bon yàggu fii hmm. guddul fan ndeysaan yal na ko yàlla yërëm macha allah mais mi ngi doon def liggéey bu am solo daal pour wax ni rek médecine moderne ak traditionnelle complémentarité la war a nekk quoi macha allah kenn ku hmm. euh, loo mënul nga envoyé ko ci ñi nga am yaakaar bu hmm. baax a baax a baax léegi nag bii nga xam ne que mooy sa dàkkantal muy pomade miracle waaw euh, pomade miracle moo nekk bi waaw bii mooy ci boppam doon pommade boo xam na que karité la ko defaree. karité mais jëmm karité bi mu ko defaree tamit euh, karité moom yomb na ku bokkut ak produit yi nga xam ne que ku ne nekk ci TikTok bi ne samay bagage ak ni déedéet ñooñu ñenn ñi waa D2 la fii première division fi nekk lii. loo xam ne que bu la neexee man de wax dëgg yàlla pour témoin am na benn ngan ngandim maamu animateuru émission du émission musique nag bu am solo. xam man moom dooma yeey ñëw na ma sa gars yi ñuy werante werante ma ne ko nangam man maa dem ci tegtal boutique jëndal ko jox mais gis nga bi ma ko ko mayee fala la jaare ba ay at moom mooy ñëw di ko jëndal boppam même bu boutique bi waree tëj dina teel a woote ne léegi lii man loolu mooy sama ndam du xaalis de. Mm-hmm. mooy nit bi nga xam ne que dafa yor esprit critiqué ma convaincre ko ba mu xam ne man mii ànduma ki caaxaan kat. Mm-hmm. te Maodo Ndaw bi ma ko indi tegtal boutique ah, ñam fa nekkandooloon di ñoo ñu ko gën a siiw ci tur mais defe naa fi mu nekk nii ku dugg tegtal boutique borom pommade bi ak nangam moo da ndaw ngay ñëw di xool si kii te boobu man kon teel na maa xam ne yor na lu baax ba ma d'accord mu dugg fa ba mu fa duggee ba léegi ay ndam laa ci am ku ko jël ñeme na maa toog une semaine woo la ne la loo yëg wala yow nga waxal ma ko sa bopp moo tax fu ne la ko waaye di jóge di ko jënd équipe nationale buñ ko amoon yóbbu ko dañuy sant France boo ko tubaab yi demoon gu amul 1000 euros ba moytul doo ko laal kii jar na sax jox ci ñoom kaddo ñoom président Ousmane Sonko ak président jomaay pour coono yi ni daj ci réew mi ñu kii ci bu baax a baax a baax Omar Daaf bay football doon na ci am cadeau. Euh, mm-hmm. bii moom ah du du neen daal man gis naa karité mais boo mm-hmm. xam ne da ngay nit kii mën na laa fajal lu mu xamul. lim ci bind nii. limal ma àpp bare njëriñal pommade bi ñu dégg pommade miracle. mu macha allah pommade ah, muy faj dafa bëri. xam nga xam nga bu njëkk dama daan bu ma defaree ñaan gi. Hmm. damay damay wax douleur góom dagg-dagg lakk-lakk bëñ buy metti biir buy metti ballonnement hmm. hémorroïde. waaw estomac nangam nangam li ma li ma li ma yi ma xam yëpp. mais nit ñi dañuy ñëw naan la docteur faj naa si lii faj naa si laa faj naa si xam nga. Mhm. léegi nag moo tax suñu defee euh, su ñu defaree suñu karité bay jàng ñaan gi ba def si su suñu saafaraak yooyu yëpp mhm. damay ñaan suñu borom rek ni ko lépp lu ñu si woo yal na ci wuyu ci bi mhm. ah, waaw euh, waaw chif nan nañ ko defal daal yàlla defal muy chifaawuli kulli daal lu ñu ci woo rek ci wàllu tawat suñu borom yal nañ ko saafara moo tax muy muy muy muy lépp daal maanaam góom dagg-dagg lakk-lakk bañ buy metti biir buy metti mhm. ñi am hémorroïde dañ koy fajoo dañ koy def suppositoire di ko naan jigéen ñi am problème vaginal moom la ñuy fajoo dañ koy def ovule seen biir karam mhm. maa ngi ci jigéen ba tey jigéen ñi nekk en état mhm. jafe-jafe yi ñuy am yëpp bu ñu umbe ëmbee wala ñuy bëgg a wësi nag nekk ci matak yëpp pommade bi da leen di dimbali dañ koy naan di ko diwoo bi ma si joxe rek mooy femme bi amoon position siège sama koñ ñu war ko xëy euh, opérer biir bi di metti la nuit comme docteur yéwén gi nu yéwén ci paj mi nee mm. naa fu garab gi fu mu ne Mm. da ngay faju di faj sa njaboot wu joom ni ah comme docteur nee na da ngay faju di faj sa njaboot te kii biir baa ngi metti dañ ko war a opérer suba jaaxle nañ ci guddi gi dañ mm. ko booleeg meew mu naan ñu may ko defal meew mu naan mm. biir bi sedd ñu diwal ko biir bi ñu xëy suba dugal ko bloc gis nga instant yi gars yi di préparé pour ñëw def seen opération fekk yàlla wëlbati na doom ji pour mu accoucher normal te boobu dañ ko waroon opérer ak ay miracle yoo a ay dem jàmm dégg. am naa un de quatre-vingts ans boo xam ni. Mm-hmm. yat la yor de ñëw consultation. Mm-hmm. ni Abidjan maa ngi tane de man ma ko maam kay yow daa mel ni ni nga tane mu ne ko nag loo ci xamul ab ñetteel laa bëgg fi mu ne nii. Mm-hmm. ab ñetteel waaw abi ni ko waaye maam bu ñu la mayee ñetteel xanaa danga lay suuli mu ne ko. miracle baa ngi fii <laughs> donc macha allah gis nga même sax ñi nga xam ne dañoo am jafe-jafe seen wàllu awra awra yu gàtt yeeg yu tuuti yeeg yooyu yi nga xam ni dafa am problème pour développer wu am nañ ay témoignages si si maanaam émission bi yoo xam ni mm, mm, dinañ si ñëw dinañ si ñëw dinañ ko seetaan après ñoo xam ni même ñoo ma ko ñoo ma ko xamal sax lin lay wax ni rek mm, yaa ko defar mais xamoo sax njariñ li yëpp yëpp ñaan gu nangu la daal am na <laughs> ñoo xam ne nañ seen wàllu kër daal mm-hmm. pomade kon dégg ko kon pommade bi. maanaam góor euh, boo xam ne que ci wàllum sëy ci suuf gi. nee na bu la neexee mën nga cee gis sa bopp. bu mm-hmm. baax a baax a baax. Mm-hmm. Mm-hmm. jigéen tamit jafe-jafe yu mu am ci wàllum suuf gi kaw gi yëpp. mën nga ci am jàmm bu baax a baax kon daal pommade bi. ni mu waxee. mooy catu bopp ba catu tànk. fu la neex diw. bu la neexee dindi lekk. bu la neexee naan bu la neexee jox njaboot gi ñu diw bu la neexee ñu naan. façon yu mel noonu. diwal rek te bàyyi sa bopp wala nga naan rek te sa bopp wala nga lekk lu tàng. dañ koy booleel muy café wala lipton tëgg wala kii yu mel noonu baax a baax mën na laa fajal ba fajal lu mu xamul léegi bu doon lim yi muy faj nag ay ñoom hémorroïde jabet waaw yooyu yëpp ñëw naa si yooyu yëpp da koy traité yëpp da koy mm-hmm, mm-hmm. pot yi dafay faral di soppeeku ngeen bàyyi ko xel da mm-hmm. seen ku yor benn pot rek bu ne bu melul nii du jot tey day mel nii ëllëg mu mel nii mais pommade miracle benn la fi numéro docteur Maodo Ndaw xaaral ma joxaat la ko bu baax a baax pommade bii bu

HLM euh, oui HLM route de Dakar. en face bureau HLM en face bureau HLM. foo mën di nekk yow mi kii nekk bitim réew jaaral ci whatsapp bi nga jël ci sëq ak joor yóbbul sa mbokk yi. Mhm. ñu GP yaa fi mu dem bu baax a baax a baax a mhm. baax. bu dee da nga nekk Dakar da ngay dem Tektal boutique dama bëgg saa nga woote dina jot naa kii da ngay def euh, ñëw ba station xaar yàlla boo mel leen luy dem dakaar boo jàddee station xaar yàlla ci car di fi ñu taxaw ak station bi ñoo jàkk ak kii bi ñoo boutique Tektal bi ñoo jàkkaarloo. moo taxaloog Thierno muy defar télé yeeg yooyu boo ñëwee foofu boo ci soxlaa sëq ak joor di ko am camion conteneur di nga ko am bu baax a baax a baax a baax pomade miracle baa ngi nii góor jigéen magal ak ndaw numéro Tektal boutique nag 77 108 51 51 mais même boo mënul jot xamal fu boutique bi nekk rek foo laajtee boutique Cheikh Talif foofu ñëwoon la ko bu baax a baax jàpp naa ne di nga am mbégte ba indi kado booy bégalaate waa paa nga may takkali pot daal ndax. yàgg na fa te njëriñ rek lañ ci xam bu baax a baax lan nga gisaat ne miracle boo xam ne que euh, pomade miracle def na ko bu la yéemaat boo mën a tudd comme bari ma mais comme tudd nga benn sànq euh, ndaw soo ak paa bi kenn ko ci mën a dolli rek pomade bi ñu xam njariñ waaw macha allah euh, Cheikh pomade bi. waaw. defe naa suñu soppee bi nga xam ne moo ñu moo ñu dalal tey sax dina si dina si indi témoignage moom it dina wax si témoigne dina wax si pomade bi mm. mais li ñaan gu la daal léegi xam la parce que fu ñu koy wecc ñu ne kër sëñ Mbaye Sy Mansour mm-hmm. fu ñu koy wecc ko ñu ne kër soxna may Murtala mm-hmm. Murtala mu sëñ Murtala mu maam borom Touba mm, kër sëñ Abdou Hakim fu ñu koy wecc ko ñu ne kër sëñ Sam Mbaye soo da ci am sama jigéen yor ko mm. ak yeneen sama grande sœur kër imam Ndaw ay kër yoo xam ni daray caaxaan néew fa bu doon caaxaan du fa nekk mais pommade miracle mm. li ci yéeme mooy dafa jur yeneen pommade te xam naa dañ siy ñëw daal kon dinañ ci ñëw mais pommade miracle dafa am euh, seex bi mooy rakk ji mm-hmm. muy euh, sirop bi kon pommade miracle bi ngeen bàyyi xel bu baax a baax a baax juróom benn téeméer la koy weccee ko. Mhm. muy euh, mille francs mhm. bu dee ci anglais du nga koy waxee anglais 3000. 3000 3000. 3000 kon Gambie ngeen bàyyi ko 3000. Mhm. Euh, ci am na ci Tektal boutique am na ci Maodo Ndaw direct benn daal foo làmb daj ñu ñun moom lu baax dañ ci sawar ci ñeme ci wax nii ma jëlee engagement nag di témoin ne man maa ko wax. du fépp laa koy def de. parce que man moom du ma naa fekk du ma tricher. témoignage bu dul dëgg milliard sax ko jaral. ndax. fi nu nit ñi teg loolu duñ ko fooye bu baax a baax kon pommade miracle euh, demal Tektal boutique rek nga jël fa yim am yépp mais bi ñu ñëw ci bii mooy sirop bi ci pot la daan nekk léeg-léeg mu mel nii. sirop bi sirop miracle bi waaw sirop bi nag moo nekk ah, kii sirop miracle anti hémorroïde bi bii mooy sirop bi. Mhm. sirop bi nag moom dafa bëgg boo jël pommade bi ñoom ñaar ñu ànd ko quoi. nga boole leen. di mhm. jël bii bii di defar ci biir ak bitti bii di defar ci biir ak bitti. sirop bi nag sunguf la. Mhm. du sirop boo xam ne que luy saf suukar di neex ak yooy de. comme yi ni jox xale yi. sirop moom lu muy wund ci njariñ comme moom it. waaw sirop bi xam nga dama toujours Mm. dama gëm la thèse selon laquelle kenn mënul faj jàngoro te fajuloo siti mm. ndox siti moo jur suñu feebar yëpp yëpp yëpp c'est la mm. racine du mal te nit ñi dañ defe ni ndoxu siti ay wokkatu la rek ay picc mais dafa dépassé eh, foofu parce que boo nemmee ko yaram bi di tàng. am na tey ñoo xam ni seen problème yëpp mooy tàngooru yaram. tàngooru da ngay dend ak sa soxna nii sax guddi mu naan la yu sa yaram bi dafa tàng. wala euh, jëkkër ji di ko wax soxnaam wala soxna si di ko wax jëkkëram. Mm. wala ñoom ñaan ñëpp ñu àndale ko. wala nga nuyu nit mu naan la si booy sa sa loxo yi tàng na de. tàngooru yaram boobu dafay tere nelaw. 5 heures du matin la deret ji di mën a sedd nga bëgg a for a xëy liggéey. Mm-hmm. ñu am ñu koy dund mu mm-hmm. bi moo koy def. sirop miracle bi da koy faj. Mm-hmm. gis nga bopp bi boo ko donc yaram bi di tàng karaw gi di bopp bi di xasen di def ay ak di def karaas comprendre nga mm-hmm. jàpp bët yi muy xasen dem ba def ay bëtu café doole di metti mm-hmm. doo mën a xool si naaj bi Mm. def la soj bu chronique am na ñoo xam ne bu ñu xëyee suba dañuy tis ba naaj bi tàng jër mm. ñu naan la ay sinusite am ñoo xam ne dem nañ ba opéré benn yoon ñaari yoon affaire bi di dellu siwaat mais lan moo koy delloo siwaat si sa yaram mm. li koy delloo si mi si sa deret am na ñoo xam tey siti bi dafa wàcc jàpp seen bëñ bëñ yi di metti di xaseen di di di di wadd na ñoo xam ne seen bëñ yëpp bu bii méttee nga dindi dem nañ sax ba amatuñ bëñ dañu mujj def euh, poosé seen seen bëñ yi mu nekk ay jafe-jafe yoo xam ne nit ñaa ngi koy dund te bu ñu faj woon siti mi vraiment loolu duñu ci fekk ma ngoog muy wàcc ba si put gi def la ay irritation yoo xam ne am ñoo xam ne <coughs> toujours loolu ngay dégg ñu koy def hmm. boo nee tëf lu mel ni pepp ceeb boo xam ne dafay ànd ak euh, odeur yenn saa yi mooy hmm. génn hmm. day wàcc dugg si kër bi di fatt artères yi ba nga xam ni euh, sang bi du mën a circuler normal ba cër yi du ñu mën a jot li ñu war a jot si deret loolu yëpp cité bi moo koy dox su ko defee da gis ay jeunes de rien du bu ñuy dox di appaat wala bu ñuy daw appaat wala ñuy yéeg escalier di appaat mm. te loolu yëpp ndox cité bi moo koy def wàcc ci biir bi te mm. loolu bu yàggee ñu naan la cardiaque am na ñuy mm. faju cardiaque ñoo xam ne tey man bu ñëwee si man traitement cité bu baax laa leen di defal ñu ànd ñu tàggoog seen cardiaque fañ nañ si ñu bëri mu wàcc si biir bi def la ay ballonnement biir bi Mm-hmm. doo mën a dem ginnaaw kër toog ay fan doo dem toilette. Mm-hmm. te boo forcé yi paf yenn saa yi deret ay génn. dem ba mm-hmm. def la hémorroïde buy génn wala mu bañ a génn. macha allah nit ñi ci am si ay jafe-jafe yoo xam ni. loolu yëpp bu ñu faje woon sétim yi. vraiment yàlla da koy saafara loolu mooy sirop miracle. Mm, te noonu lay wàccee si yax yi tamit. vraiment jàpp articulation yi ñu naan la ay arthrose. mu dem si cartilage bi. li doon protéger cartilage bi. ndoxité hmm. bi mën na fay dem yàq ko liquide boobu ba nga xam ni mobilité dootul am. su ko defee yax yi di frotté wu noonu. Hmm. def la ay néew yoo xam ni vraiment articulation yi di néew yi yëpp nga am ay jafe-jafe yoo xam ni doo am hmm. jàmm. doo nelaw guddi te yooyu yëpp vraiment résultat bi ñu si am yëpp. base traitement bi. vraiment cité bi la. te sirop miracle bi moo ñu si jàppale. Euh, ñu ñëw nag ci kii. ak rasulaay anti musik mm. Pierre Isaar ak ragal yoo kon ku ragal yoo mm-hmm. kon bàyyi leen ci boutique yi dem di di jënd garabu yoo bii mm-hmm. mooy loo xam ne que nag am na ñoo xam ne que maa ngi xaar ba kenn weddi fi kii ku ragal yàlla la ku maandu la mm-hmm. te fu jaar ci ak mbir laa yu mel noonu baax a baax a baax a kon anti musik bi nu muy demee ak yooyu waaw au miracle anti lu yéeme la lu yéeme yéeme yéeme parce que ndox ak plante nga jël muy dàq musik muy dàq musik def ci baatinu faj bi vraiment mais moom yor ak les naturel naanal ubbi sa naan. <laughs> c' à base d' et de plante. amul benn produit chimique bu si nekk. Mhm. te day impacte dans l' environnement xam nga. dans l' écosystème. Mhm. amul benn produit chimique boo xam ni nekk na ci eau miracle anti mousse bi te yow yoo du biw yoo du màtt. Mhm. yoo du biw yoo du màtt lu yéeme la. te xam nga moytu après ah? yooyu ñoo lay moytu ah. gis nga boo ko diwoon sa yaram nii ah. yoo bi moo lay moytu <laughs> je pense que mbokk Cheikh dina si ñëw ak ay témoignage xamul ne def non tubaarkàlla macha allah xam ñu jox sëñ Cheikh Tidiane Mbodj mu témoigne ñu ci mbir yi seedeel ñu ci parce que euh, pomade beeg ak mbirum yoo yu mel noonu parce que am na ñoo xam ne dañoo dëgër fi tem ñuy xel ñaar ii yoo nu ko nit mën a gis nga kii au miracle anti moustique fu mu hmm. ne kenn du fa takk moustiquaire imprégné Hmm. soxlawuloo ko. soxlawuloo ko weñ yi sax dañ lay abal waxuma yooyu de mais weñ yi sax. dañ dañ lay abal. waaw ah, lii xewal la macha allah. Ah. ba pare xam nga siburu. Ah. te bu yoo amul siburu du am. te siburu li muy faat si doomu aadama presque ay 2 millions de personnes ay tout chaque année. fii ci Afrique ak ak ak ak monde bi très bien. Eh, man jukkurim tey fu yëkkër la gan ma teral la ndax alganiyu turu yàlla mooy le riche doon na yàlla ne ku teral le riche le riche teral la kon yàlla defal ñu jàmm ak salaam di man la Cheikh Tidiane Mbodj euh, euh, dëkk fii Hann Maristes 2 îlot Z village 113 di conseiller municipal nag président de la commission chargée des relation entre les chefs religieux et les coutumiers waa di dalal nag docteur Ndaw mi nga xam ne moom mooy borom Kombirane léegi dellu yëpp na si yàlla nag waaw nañ dellu yëpp si yàlla c'est pas la pomat kii mooy faj c'est pas mais yàlla mooy faj di ko matérialiser si pommade bii nga xam ne mooy di karité jël nag jaamam tànn ko muy ima docteur Ndaw jox ko loolu pour mu jëfandikoo moo ne ko def sax si ndox jox la wala mu ñaar la ëf la benn la waaye ne jël teraanga bi yëpp nañ ko del suñu borom subhaanahu wa taala julli si yonent bi ndox mu dolli ñu nag fasteef ak yaqin sant yàlla bu baax a baax a baax nag Pape Malick lu mu ko waxee nag lu am solo la waaw man moom laa njëkk a xamante ak moom Pape Malick bi am na sam benn système jox naa bu amoon cancer du sein diagnostic ko war ko opérer ba mu demee chirurgien fi ne ko cancer bi dem na amatul am na seen benn niveau dañu ko war a opérer ay amygdale ay quatre ans cinq ans ma jox ko ko fa la jaaree naxasaay jox naa ko ku am panar yi day dem yëpp nag xale yu jigéen yi nga xam ne ñu ngi doon am doom ñu agrafe bu ñu ko defee jeex na jeex na man mii aussi li mu wax nii seen benn xarit boo xam ne ni yàgg na ay cinq ans dix ans mi dox ak bant mais mu jëlee deux pots. yàlla dafa ko ci tawféex comme ni wax yàlla may faj nag ñu gërëm nag Maodo nag parce que su jubul woon ragal yàlla sant yàlla lii du ko am naafeq yàlla daf koy toroxal mais ku ragal yàlla yàlla lay barkeel kon nag ñaan bi yenn yàlla barkeel ko li mu wax nii nag dëgg la ah pommade miracle nag kenn mënu ko fay yàlla moo ko mën a lépp loo ragal sa kër boo ko ci defee incha allah wasi incha allah yàlla jàmm ak salaam kii nag nga xamee ne nag mooy au miracle anti moustique wax dëgg yàlla man def naa ko sama kër fii fii après ku fi dugg day toog ne mais man fii amul yow mën na ko pawan miracle kii eau la jël un litre may ko ko waaw jox naa koy nag si ay semaine nit fii mais malheureusement jëfandikoo jëfandikuñ ko lii nag li Maodo wax nag maa ngi ñaax nag monsieur le maire Babacar Mbaye nga xam ne mooy maire de commune Hann Bel-Air nga xam la nature c'est sa bonté kon nag ñoo ngi ko ñaan moom bu ci amul ay deux tonnes na ko jënd dimbale waa Maristes ak yàgg nañ ko joytu wax di sant yàlla bu baax nag Maodo nag kenn mënu ko fay waaw yenn yàlla fayal ñu ko kii nga xam ne mooy koy vulgariser mooy Cheikh Tatal aussi am façon bi mu koy waxee parce que moom c'est un communicateur moom daa ko wax moom gën a xam ni ñuy waxee donc moom aussi il participe tamit à l'expression de saa ñun dañu gëm tubaab trop tubaab baax na nag wax dëgg yàlla parce que xam-xam bi moomuñu ko yàlla moo leen ko jox ndax ku ku gëmul baatin gëm ziyaar rek waaye ziyaar moo gën a metti baatin parce que dañuy ubbi waaw parce que yàlla bu fekkoon dañu ubbi doomu aadama rek kon day def fañ koy ubbee mais daf ko tëj compact kon nag loolu moo ci nekk kon nag genre boobu baati ba mu nga am yan yàlla defal la ci jàmm ak salaam ñu am nag may wax loolu loolu toujours rek mooy yàlla la yàlla la te tamit moom dafa ragal yàlla fa topp yàlla topp si yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom lu ñuy wax tur bi gën neex rek mooy Bamba ah Bamba maam Bamba ndax ba boo ko tekkee muy signi booy Ahmadou benn Mouhamed benn Abibullah waaw boo déglee araf yëpp mooy Bamba ba kon nag yàlla ñu defal jàmm sama ak salaam te dolliwaat gërëm la bu baax a baax a baax nag euh, lii nag moom lay sos monsieur le maire Babacar Mbaye mu jën ci ay ton waaw man yàgg nañu ay jooy wala ay azim fii amatul yow te weñi sax wàññeeku nañu sama doom bi musul bëggu moustiquaire da doon sonn fii la doon fanaan du nelaw guddi mais day nelaw bu bind ci léegi da nga koy pomper nag à volonté am mbind bu la ko joxee nag da koy def à volonté doo def rek bàyyi ndax yoo même bu dee yoo toog sax boo ko pomper am na des résistants am na yoo xam ne du ñu dee dañuy ñëwaat rawatina mën a da ngay pomper rek incha allah autorité autorité yi ñoom dañu bëgg wala joxe échantillon comme ni koy waxee nii rek dañ koy jàngat parce que dafa bari ñoo xam dañ koy defandoo. am na ñoo xam ne kii copier maanaa am sax yow nga génn ko kenn jël defaa ndox rek joxal leen ko ñoo tamit bu defee nag kenn mënu ko def ne kii c'est original parce que amul lu yoone ne kii si Maodo Maodo jógee il faut ñu am loolu nga xam ne ko gis xam ne kii c'est original daa ko copie ñoo ngi ñaaw autorité autorité aussi comme coutumier que religieuse ñu jël ko en possession léegi moo tax ma ne dañ ci jël di jox ay échantillon dans les maternités nga xam ñoo gën sonn avec les su ko defee ñoo ne def témoin avec les docteurs qui sont chargés de structure hospitalière waaw di ñaan yàlla defal la tawfeex guddal say fan waaw li may ñaaw docteur docteur yi nañu mujjee génn àdduna parce que ñoo ñuy faj waaw ñu ne ñaaw ñu gudd fan ak ñi nga xam ne ak yow façon docteur yi ñaan leen gudd fan seen fan ak communicateur yi aussi nga xam ni ku amul communication doo xam kon communique mooy Cheikh Tektal nag yaa ngi fi yàgg te wér ñu tam yàlla nañ fi yàgg te wér ndax yaa ne kenn du ñaan kenn bàyyi sa bopp <laughs> yàlla defal jàmm ak sa Ah, jërëjëf euh, sëñ Cheikh Tidiane mbooj euh, kàddu yi rafet na te dëgg na te témoignage bu naturel laa bëgg man faruma bëgg di bëgg kuy témoin sax mhm. mais lii moom wax dëgg yàlla ku ragal yàlla ku mel ne yow loo wax rek am na foo ko teg ndax doo ànd ak kenn ci amal neex ndax euh, xam na daal nin la gisee bu baax a baax a baax ak nin xamee Maodo Ndao moo tax man basé wu ci ay témoignage yu bari duma koy faral di bëgg mais témoignage bu naturel dafay dafa may convaincre quoi Euh, léegi sëñ Cheikh Tidiane kii docteur Maodo Ndao mhm. euh, lan ngay wax ci Cheikh Tidiane euh, Mbodj moom dafa mel ni bëgg na ci yow de. ah mais Cheikh macha allah moom mhm. yàllaa ñu mhm. boole rek. mu doon dem HLM di fa jënd produit ba yàlla boole ñu macha allah mu gis si boppam dimbali si ñu bari nag. ba anti musique bi bi mu génnee. Mm. ma ko Cheikh daal dama génne benn produit boo xam ne te bëgg naa nga jàppale ma si pour mu yaatu quoi. léegi nag mu ma ni ko léegi dinaa la envoyé ay échantillon nga maye ko. dëkkandoo yee xarit yi. Mm. ndax xam nga looy jël di ko maye wóolu nga ko. Mm. ay échantillon laa ko yónnee mu maye vraiment nit ñi gis seen bopp. dama ni la yoodu biiw yoodu mat. loolu daal mooy mooy sunu njël voilà fa la juddoo nag au miracle anti moustique. parce que si consultation gratuite yooyu ma wax. ak professeur Issa Mbaye Samb dañoo dem Medina Baye imam Assane Cissé rahmatullahi alayhi invité ñu. Mm. deux heures du matin lañ fa yegg ñu ubbil ñu kër yi. ku mm. ne ñu dalal si kër imam yi noonu. mais dama ubbi sama néeg rek ay yow tool ni kurfañ. Ah. ñoom laa mbëgganteel si bunt bi te man lu yàlla sàkk yow laa ci gën a gën a ah. gën ragal. te deux heures du matin il faut nga fanaan amoo feneen foo jëm. ma jaaxle. maa ngi toog si lal bi gis nga yoo yaa ngi sam di armé wu kay dama bëgg <laughs> ma ne ah ay mbir am na de eh. waaye nag macha allah xam nga fi ñu bokk eh. tiitu du ñu tiit du ñu jaaxle mm. ndax ndax situation bu ñu toll rek dañu jël situation bi jox ko suñu borom subhanahu wa taala mm. si laa jëlee ci alxuraan gis mm. nga alxuraan am na fa ñaari aaya yu si nekk yoo xam ni yooyu nii. ak genre yoo bu mu mën a nekk ak ni mu toll ak fu mu ne dans le monde. Mm-hmm. mën nga ko tëng si aaya boobu. ci ma jël benn aaya bi dugal ci yooyu. Mm-hmm. jëlaat deuxième aaya bi mi ngi ci alxuraan ba tey. defar ci benn répulsif maanaam lu ma dàqal yooyu wala lu dox sama digganteeg yooyu wala sax moustiquaire imprégné si benn aaya laa ko defar. Mm-hmm. pour yàlla musal ma si yooyu bi ma defee loolu yëpp nag laa leen laa leen laa leen laa jàkkaarloog yooyu ni leen su dee gëm ngeen yàlla gëm alxuraan gëm yonti salaasam gëm bisu penc. bu leen ma bu leen biiw te bu leen ma màtt mm. gis nga bi ma nee nii Cheikh si la mm. yooyu commencé reculer ma ah. ma summeeku teg sama yëre jaaxaan nelaw ba sama xol sedd <laughs> mais yooyu ah. mel ni macha allah mais man nag man nag gis nga anti musique mii daf may tiital ah, ndax dama ni segam mbindaafoon yooyu nga xam ni ay yoo laa la wax mm. ñoo gëm yàlla gëm yonent bi salaasam gëm alxuraan gëm bi su penc ba executé ordre bi nga leen jox. Hmm. bu leen biiw bu leen màtt ñu def ko mais ñun nag. ah mais ñun nag. ah dama xam nga yooyu njëkk yi sax dañuy bàyyi ba nga nelaw ñu lay matt. mais yooyu léegi dañuy jàkkaarloo yow ngay xool ñu lay xool ñu lay ñuy biw. non macha gis nga. ah fa la yow jaar fa la ma yooyu euh, vraiment secret anti-mousse bi fa la doxee. Mhm. man boobu laa mujj si yow man. Mhm. léegi nag. toog ah, naa ay ati at sax. ñaata lay jaar anti-mousse bi. 2500. 2500 waaw. nu ko nit ki utiliser. koy def si Evian bu 10 litres. Euh, di wut sa bouteille pulvérisateur. je pense que Cheikh am na fi benn. comme genre bouteille lave-vite bu jeex wala yooyu. boo su diwee ba mu fees ngay pulvériser. boo doon génn nii diw ci nii. boo demee beneen kër bu am yoo yooyu dañ lay dañ lay dañ lay dañ lay respecté <laughs> duñ la màtt duñ la jege. <laughs> <laughs> non. wala duñ la màtt duñ la jege. macha allah am naa sax benn jigéen dafa dem séminaire mhm. Marie Seck ma koy nur ma koy nuru de passage mhm. soxna Marie Seck nee na dañoo am séminaire xaw ma ay côté pour la woon xaw ma la mhm. nee na ñu dem ñëpp fi si école bi ñu nekk ñëpp a ngi naan ndax yooyu rek nee moom mu toog say tànkam rek nit ñi mais ñu ni ko mais yow Marie mais yow mais yow lan la yow yow ñun ñu ñu nga bëgg dee si yooyu mun leen man yow du maat <laughs> <laughs> antifosi bi moo fa jaar moo fa jaar macha allah macha allah xam nga mm-hmm. def mm-hmm. euh, buñ bëggee topp yëpp dinañ ñëw ci bii mais damay dem ñu xoole waat tamit 4 euh, minutes 46 secondes mm-hmm. ci ki amoon nerf sciatique très bien sëñ Maodo maa ngi lay nuyu bu baax a baax sëñ Maodo man de damay ñëw pour wane sama mbégte ak sama contente ci li ma defal wax dëgg fa yàlla man de awma sa fay ndax ginnaaw yàlla yaa ma jàppale ci sama feebar bii nga xam ne mooy nerf sciatique bi sonal ma lool nag ba ca kanamu yàlla sonal na ma lool nag ndax avant may ñëw ci yow sax am na ci yu ma dem yu bari yoo xam ne wax dëgg fa yàlla hôpitaloo am na ci yoo xam ne dem naa ci ay marabu dem naa ci ay yoo xam ne dañ ma jox ay genre xaw ma du ma mën a kii sax yoo xam dama koy naan wallahi ansi lépp lépp lépp essayé naa ko dama essayé yëpp waaye gisuma ci woon benn tan waaye daal dama toog nii rek ci benn dimanche sama papa am na sa numéro waaw moom moo ne ma te ngaa woo kii nga dem xool ko ba xam sëñ Maodo lu tudd nga dem xool ko ba xam nga essayé ndax làmbaatu rek ma ne ko a ah, man de papa fi mu nekk nii aw ma leen lu may bañ mën naa tane rek ndax sonn naa ndax lu ne essayé naa ko sama xaalis bi pratiquement jaay naa ko muy man muy sama borom kër ma sonn ci lool nag dox mënuma ko tëdd rek laay def tëdd rek te damay onk di yuuxu ba ba set wallaay ansi mu metti lool ci man nag waaw waaye bi ma seetee sëñ Maodo ba tey dëgg fa yàlla ci la ma sama ma dama Cees demal Thiès bi ma demee Thiès dama la woo sax dama la woo nga ne ma man de tey la dimanche sax waaw tey la dimanche ma bàyyi ba lundi ma ne sëñ Maodo man de damaa dimbali ma rek ma ñëw ba foofu wallahi azim li may wax nii sama digganteeg yàlla laa ko wax wallahi azim bu dee li may wax amul yàlla bisu tey bi bu ma ko àggali dara jëralu maa wax loo xam ne amul wallahi azim bi may dem Thiès oto bi ñu luwee dama ci tëdd dama tëdd ba ni ma àggee Thiès wallahi azim di onk di onk ba ni ma àggee Thiès billaahi wallahi tàllaahi bi bi bi may bi ma demee ba mu defal ma ñaani defal ma sangat bi diwal ma karitéem boobu nga xam ne macha allah macha allah defal ma ko diwal ma ko defal ma moccal ma wax dëgg fa yàlla cocc laa def man li ma ci gën a jaaxal bi mu defee kii bi rek bi ma moccee rek ci saa bi mën a bëri jug wallaahi azim billaahi wallaahi taalaahi ca laa jugee ma jug mu defal ma mocc bi defal ma sangat bi fekk maag sama borom kër a àndoon bi may dugg ci kii bi dañ maa jàppoo waaye wallaahi asi bi may génn maa doxal sama bopp bi may dugg ci moom dañ maa jàppoo dañ maa jàpp ndax boobu mënuma sa yëkkati sama tànk bi ndax man nerf sciatique bi tànk bi la jàpp tànk bi la jàpp sonal ma lool nag jàpp tànk bi mu jëm ba ci ndigg li su ma nooyee sama jàpp ba sama xol bi mu metti lool nag wax dëgg fa yàlla waaye ginnaaw yàlla sëñ Maodo mii laa dem bi ma ca demee mu defal ma li may defal jox ma traitement bi ne ma traitement bi trois mois la nanga ko toog mën a ko soobee yàlla de bu dee sama bakkan gi maa ngi moom soobee yàlla traitement yi dinaa ko topp ndax ba ma demee ci bis ba laa gis tan wax dëgg fa yàlla gis naa ci tan bu baax ndax dem naa ci yu bari di yóbbu sama xaalis waaye gisuma ko ci man dara jarul maa wax loo xam ne amul àdduna bi dafa jeex ba pare dara jarul ma ko waaye damay wax te yàlla rek tax wallaay azim ba ma fa jugee ñëw maa ngi nii ñibbisi di continuer traitement bi maa ngi nii commencé nekk ci samay activité wax dëgg fa yàlla kon yow sëñ Maodo macha allah yal na la yàlla la fa cat macha allah yal na yàlla gën a wéral ndax yow moom genre mel ni yow. wala ñu ku mel ni yow wax dëgg fa yàlla dañ leen soxla ci réew mi ndax sama nerf sciatique bi daf ma sonal ba ca kanam yàlla waaye yàlla na yàlla fay amuñu sa fay de yàlla na yàlla fay man de awma sa fay wax dëgg fa yàlla ndax demoon naa ba xàddi demoon naa bay toog naan man lii ndax dinaa jugati wallahi azim waaye ginnaaw yàlla yow yaa ma ci jàppale kon man de sant naa la gërëm naa la waa kay jërëjëf jëf aw nga sa fay sëñ Maodo sëñ Maodo aw nga sa fay jaajëf jërëjëf sëñ Maodo. jërëjëf euh, docteur Maodo ndaw kii moom euh, wax dëgg yàlla sant na bu baax de wax dëgg yàlla kon daal ñi bëgg a yéeg escalier yi ñi am yaram wuy metti ñi am problème yooyu yëpp mën nga ci dara daal. non dama ni la damay hmm. ñaax euh, patients yi. waaw pour ñu ñëw consultation. ñu produit yi baax na lu man damay wax na mën naa. Hmm. produit léeg lee ma leen maa leen defar de waaye xañ leen ma. consultation bi mooy ñasa de. waaw boobu ñasa bi. parce que ñëw consultation. Hmm. bokk la nga dem rek jënd sa produit. parce que nit day yor métit defe naa si témoignage nerf sciatique bi si léeg-léeg nit dugg fa. ñu tëral ko si oto mu jóge dakaar ba cees sonn mënul sax dox. mais bu duggee si cabinet buy génn mooy yóbbu mooy doxal boppam. mooy yóbbu boppam. Mm. loolu lu ñu yàlla dénk la daal dangay dugg ak métti génn ak. macha allah jàmm. Mm. loolu moom yàlla moo ñu ko defal. donc ñu wax nit ñi nañ ñëw consultation. Mm. parce que boo ñëwee consultation docteur xool la xool li war yi si yëpp mu defal la. jël baatinu faj bi dugal la foo xam ni boo fa duggee sangu génn rek macha allah. ay dem jàmm dikk. bu ko defee nañu ñëw Cees daal di di consulter wu. da see am solo. donc bi ba miracle ñasa bi la sama yaay laa ko tuddee mère ñasa soxna si góor gi ni woon yëg nga ni kontaan naa mu ni ko lii laay sàkku mu ni hmm. ko loo fi am mu néew mu bari dina barkeel mère ñasa laa ko tuddee hmm. xam nga nit ñi dañu am ay problème mu neer hmm. waaw waaw neer sciatique nit ñi ay problème mu neer kii ba ñasa bi looloo tax ma defe ko ñi nga xam ne dañu am fibromyalgie xam nga dem ba yow asthénie sévère dem ba yow xamatoo sax fii metti mm. foo laal day metti mm. foo laal day metti amul fu sedd si sa yaram mm. dem ba sax ba dugal la fee feebaru dem ba sax métit yooyu day dem ba sax ba yóbbu sa xel waaw kon léegi lu metti Mm. di dund lu méttee méttee moo tax boobu miracle ñasa bi génn mm. moom pommade yi yi defar yëpp usage interne externe da ngay da ngay jël kuddu booleeg lu tàng mu seey nga naan mm. wala nga seex war naan lu tàng moo gën nag pour nii bi bañ a des si kaas bi booy diwu pour des précautions d'hygiène nga bañ fi def sa loxo gis nga pot yi léegi effort bi ñu def vraiment defar ko ba mu gën a taaru defar ko tamit ba hygiène bi yokku da tibba kuddu teg la jaaxal sa yaram nga diw ko si kii donc anti ah. hémorroïde bi moo ngi nii ah. Ah. ànd ak euh, sachet kii boo koy jël boo ñëwee tegtal boutique hémorroïde sonal la mm-hmm. da nga ko naan jox ma gamme miracle anti hémorroïde bi pommade la ak sirop ñoo ànd ñi nga xam dañoo am jafe-jafe hémorroïde mm. wala ay ballonnement dem ba hmm. muy saigné dem ba hémorroïde boobu def la rétrécissement du sexe. Hmm. sexe bi mel ni luy dellu ginnaaw. Hmm. waaw te da koy def. da koy dem ba xañ la sax yàq sa ndoxu maniyu bi ba nga xam ne sax pour nga am njaboot problème la. dem ba bëreet nga yegg nga yegg fi nga jëm. am éjaculation précoce wala faiblesse sexuelle gaa yaa ngi fi ne nii atte bi coow li bari na Cheikh. waaw ma ngoog ci kër yi. su ko defee loolu yëpp gamme miracle anti hémorroïde bi da la siy dimbali. ku ñëw tegtal boutique da nga koy 51 très bien mhm. pommade miracle prostate bi anti prostate moo ngi nii prostate pour xam nga dafa yegal mag ñi ndox bi waaw mais xam nga xam nga mhm. bu fekkee ne dañoo dem ba euh, bëri lu ñuy lekk euh, viande rouge mhm. dem ba bëri lu ñuy naan ay meew ah, dem ba néewal yi nga xam ni gàncax yi nga xam ni ñoo ñoo ñoo ñooñu maanaam dem ba dundeetuñu dund bu dëppoog wér gu yaram mm-hmm. waaw doo lekk légume mm-hmm. doo lekk ay fruits légumes yu dooy doo ko lekk doo da ngay gis ñoo xam ne bu ñu sukkee si ceeb jën ak ceeb rek la ñu amal affaire mm-hmm. du ñu laal légume yooyu yëpp nag bu yàggee dafay boo ko booleeg di lekk viande rouge bu bëri di naan di naan meew bu bëri dafay dem ba feebaru prostate boobu feebaru tuur ndox bi day ñëw boo demee tour ndox muy des ngay foofu lay commencé boo demee muy des par tuuti tuuti ngay forcé fajoo ko fajoo ko day dem ba yow dootoo mën a tour ndox wala di jaabante lu bari dem sax ba prostate bi day dem ba indi cancer waaw su ko defee nag suñu pommade miracle prostate bi da ngay booleeg lu tàng di naan rek di diw awra bi produit lii daal koo dégg dégg jàmm. kon daal li président ko woote mbay sàmm bay dunde mhm. di bu ko defee li nuy faj. ak li ñuy lekk jóge ci réew mi rek mhm. léegi li ñuy faj jóge ci réew bu baax a baax. di wax ni tamit Cheikh. pour dellu si waat tuuti rek si anti musique bi. anti musique bi macha allah. est-ce que du ma dem dugalaat témoignage ñëwaat nga ñëw ci anti musique. waaw ba tey. ñu demaat allah baax na ko yàlla xam na baax na ma dama lay wax benn affaire. sa sa karité bi sa karité bi sa karité bi. dëgg la day faj lu baari mais am na yu bëri yoo xam ne mi ngay faj yow yow yow te yëgoo ko maanaam man miy wax yow nii carte bi dafa yokk sama awra sama awra de deux lépp lu mun a jàmmat dafa jeex yàlla xam na ko carte carte bi xaw ma ban façon carte la mais carte bi dafa yokk sama awra mooy sa pommade miracle bi dama koy naan tax bu tàng dama koy diw sama awra di tëdd mais yàlla xam ne dafa yokk sama awra. waaw. muy ziar wér kontaan trop wax dëgg yàlla ñu kontaan nañ trop ci produit bi miracle bi vraiment mi ngi def ay miracle yu bari bari bari mi ngi def ay miracle yu bari man ne bi ma ko commencé utiliser yàggul ay deux mois loola ci ci lay toll mois deux mois um, mais macha allah gis naa ci ay yokkute lu yu bari bari bari bari ci sama wér-gu-yaram mais surtout ci sama. sama euh, awra bi awra bi moom macha allah na tolloon gën na gën na yokk tollu naa heure mu ko ci diwee lu ma xëy suba macha allah macha allah di di di ñaxtu sama sama mbokk yi mbokk yi sama sama gars yi ñuy utiliser pommade bi miracle bi seulement dina la faj dina faj lu bari ci ci ci dysfonctionnement yi am ci góor ci sexe ndax dana la dana la yokk sa awra te dina dina la fajal boo amoon ay infection dina ko dindi nga am ay éjac problème éjaculation précoce dina ko dindi ak yeneen ak yeneen nga xam ne nii feebar la boo xam ne mi ngi la ci sexe miracle bi da koy faj non seulement ça mais dina faj ay méttitu bopp dina boo amee bopp yu métti boo ko diwee bopp yi macha allah dana wér dana tane carrément ak yeneen ak yeneen feebar bi daal bëri na ay feebar yu muy yoo xam ne ni macha allah boo ko amee boo ko commencé utiliser da nga ci gis njariñ bu wér a wér a man moom gis naa ci sama bopp. ma jëlee xamoo ko sax man li ma war yëpp si yow sax xanaa ko man kay fi ma bëggoon nga ne ñu invité li ci télé wala rajo nga waxuma ko ma woote mën a dugg quoi waaw ndax wax dëgg yàlla man man dama am ay at yoo xamante ni nii billaahi maa ngi dund mais. sama dund gi ma doon dund yëpp ay métit la te ëpp na ay at waaw c'est yàlla daf ma dimbali nag ma mën a muñ métit ba pare gëm gëm entraînement waaw mais dama daan entraîné boole ko di sentir ay métit yoo xam ne sama yaram yi ak sama tànk yi ak sama pooj yi ak sama ndigil yi billaahi wallaahi mënu ko wax kenn te du ma soxla jigéen du ma soxla dara dara dara damay nekk ak samay jigéen une deux trois garab gi da wax dëgg yàlla ko tàmbalee naan ak léegi séygu ma ak jigéen amaguma rapport mais am naa yaakaar ne bu ma sëy ak jigéen dinaa am ndam am na si yaakaar bu baax wax dëgg yàlla waaw ndax man fi mu nii billaahi bu ma demee di entraînement di damay taxaw di dóor série cinq cent flexion laay dóor par série cent barki Serigne Touba xëy na nag soo ko waxee ni nga xam ne ma wax dëgg la su ma taxawee ni samp damay dóor cent flexion dox tuuti dóoraat cent doxaat ba muy cinq cent flexion boole ko ay pompe te yooyu ba may nekk booy di bëri laa ko daan def te léegi dama koy def barki sëñ Tuubaa te xam naa ni sa garab gi moo ko waral moo tax léegi man amatuma si heure heure bu nee sama xel rek ma tubb kudd rek seex naan lu tàng waaw wax dëgg yàlla baax na si man moom macha allah billaahi wallaahi barki sëñ yow kay yàlla la yàlla musal si cat rek ak balaa ak musiba ak gàtt fan yàlla yàggal la fi lool waaw wax dëgg yàlla kontaan nañ si yow Maodo billaahi wallaahi wër na yàlla sa garab gi dafa baax barki sëñ Tuubaa waaw sama grand bi nag nga xamante ni moom moo ko gëstu ba xam ko. ñamal ko sam pap ba mu ba mu tam ma ne ma jël ko moom moom tamit xam naa ni kenn mënu koo fay ndax moom daf ma naan garab gii boo amee luy mitti boo ko diwee boo amee lakk-lakk loo am luy mitti diwal jigéen ñi nii wax na wax na si wax yoo xam ne sax yow xëy na sax waxu ko si moom xam na ko si moom wóor na yàlla waaw jërëjëf Maodo jërëjëf merci waay. mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla di julli ci yonent bu tedd bi Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu di sant suñuy woyjur waa ñoo ngi sant ñëpp boo euh, témoignage bi ñu bëgg a def ci docteur Maodo ndaw rek mooy wax dëgg yàlla Maodo de xanaa yeex faa dem man mii de laay réccu ndax ay neer moo ma sonaloon lool lool lool lool yàgg ci man nag yàgg ci man fu ne ma dem fa fu ne mu daan jàpp sama ndigg lii bay wàcc sama euh, suufu tànk yi ba dem jàpp sama loos ba mënatumaa sax gees ma dem ci hôpital ñàkk ci lu ne lu ne lu ne lu ne ay rendez-vous yu dul jeex yàlla seede nañu li ma ci yor ci mbuusi garab kenn xamul lu mu toll waaye nag miracle bi ci am moom paiement miracle la wax waaye miracle euh, miracle bi ci njëkk am man mi waxuma ko sax ndax yàlla xam na ne feebar bi sonaloon na ma ba sam bi nga xamante ne dafa tombé woon ak ziar général ziaru ndar ci laa xëy sama kër man xombal laa dëkk xombal laa nekk xombal laa nekk li may waxe dara taxul ma wax magum jëmm laa ndax Maodo joxuma lu tax ma koy waxal loo xamante ni si nii lu ma gëmul la ndax kenn ku nekk da ngay wax sa digganteeg yàlla rek mooy jóge fii dem ne naa dem ziyaare ji ndax man sama soxla bu ma am wala jaaxle wala njàqare Tiwaawan laay dem ci Sëriñ Babacar Si fa laa dem keroog samedi feebar ndax feebar boobu sonn naa bi may dem gestu sax sama loos yi mënuma ko man dem sukkuf sa raw da ba ñaan yàlla ngir yàlla sama feebar bi ndax boobu jaaxal na ma samedi dimanche altine fi ma tëdd sama kër laa am ku ma woo ñuy waxtaan ba yegg si mu ne ma tey ngaa dem seeti docteur Maodo Ndaw yàlla xam na ko keroog it bi ma demee wallaahi Serigne Babacar laa fa fekk boobu miracle man moom dama ko dama ko noppi sax moom Maodo waxuma ko Serigne Babacar laa fa fekk keroog bi ma duggee si euh, bureau sama loos bi doon metti damaa xam ne bi ma gëstu sax mënuma ko wallaay lazim laa leen yàlla wax ni ci laa commencé mel ni yëkkatuma loolu Maodo dafa bokkul ci ñi nga xamante ne dañuy def di wane ak di wane waaye keroog bi may moccal wallahi lazim di ma jox ñaani def naa noo xamante ne si ni man sama bopp sax xalaatoon naa ne loolu nekkul ci man waaye loolu te bu ko wane woon rek benn sëkk waaye loolu taxul sax man mi maa koy wax rek waaye ndax man xam naa keroog li ma li mu ma defal. bi mu bi ma fa jógee ba ni may jëg seen xombal yëgatuma daara si loo si bàyyi bi ma ñëwee jël garab yi def ko ni ma ko waxee bi ma ko defee ba pare fan euh, premier jour deuxième jour ma commencé mel ni sama may dox ba bu ma dee dox ndigal yi nga xamante ne si ni ma doon yëgee mettit bi wallahi mu commencé di di wàññeeku may dox bu baax. di lekk bu baax di ne keroog nelaw moom keroog ba ma fa ba ma premier jour ma demee bi ma ñëwee fii wëlbatiku ma ndax nelaw damaa biddanti damaa nelaw bët wallaay yàlla xam na ko kon docteur moo doon boo daw lii la amoon ci seede yi ñuy def ci moom dañ koy ñaanal yàlla rek te di ñaan yàlla yàggal taxawaayam yàlla guddal fanam yàlla dolli suturaam te dëgëral ko si kàttanu yàlla darajay Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi ñëw tey di am mbégte ak kontante ak sant goo xamante ni dañ koy sant docteur Maodo Ndaw fa tabarakallahu mbokki jullit yi lu baax kenn du ko nëbb docteur Maodo Ndaw dafa indi benn produit wu bees boo xamante ni moom la ñu tuddee au miracle muy ndox moo xamante ni day dàq ay yoo fa tabarakallahu bi mu ko deferee ba nuppi it da ko may dëkkandoo yi may ko am di jàmm yi may ko daara yi alxuraan yi waaye mbokk yi lii may wax bi mu agsee ci sama daara jox ma ko ma utiliser ko wax dëgg yàlla laa am yëg-yëgu ni naa ko yëgle ku ko dégg ku ne mën a xam kan mooy docteur Maodo Ndaw ak au miracle bii nga xamante ni moom la indi mbokk yi au miracle bii day fa tabaarakallaahu produit la boo xamante ni ndox rek la sul foo ko def yoodu naaw yoodu biiw benn yoodu la mat bokkut ak garab yi nga xamante ni da koy taal wala da koy pomp nga xamante ni ñi asma ñi nekk ci am yeneen feebar yi duñ ko mën a utiliser waaye garab gii day fa tabarakallahu man day seere laa ci bi ma ko defee sama daara rawatina ci kër gi wallahi yoo biiwatu fa yoo génnatu fa kon nag ma ni lu baax kenn du ko nëbb kon nag mbokk yi au bu docteur Maodo Ndaw mii man ñëpp nañu ko wuti docteur Maodo Ndaw nag laaxar wax lii mënut a jomm ci moom te au miracle bi defaree wuñ ko lu dul ay aaye alquran ak baatin boo xamante ni fa tabarakallahu dañuy wax ni lu juddoo cim tàgg bu naawul jaaxali bokkam xaaj Maodo Ndaw war naa mën a mën lii ndax waaja waajuram El Hadji Falilou Ndaw ca randu leen ku ne xam na ko mu doonoon nitu yàlla doon wali doon koo xamante ni boroom ijaaba la woon mag ñi fi nekkoon ñépp ku ci nekk xamoon nañu ko ba lu teewoon ticc dañu naa nañu dem ci El Hadji Falilou Ndaw kooku mooy woy juróom kon nag kéwél du tëb doom jëbët kon nag mbokk yi au miracle mi ngi noonu ñépp nañu daw wuti ko nañu daw jëndi ko rawatina ci nawet bii ñu jublu du xeeñ amul benn xet te boo ko defee rawatina boo ko sangoo boo tëddee sax yooyu duñ la kon nag lu baax loolu moo taxoon ñu ñëw fi di ñaanalaat xaj Maodo Ndaw bu baax a baax a baax docteur ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm yal na yàlla dolli sa tawféex guddal sa fan jërëjëf. ok yii gis nga ñii ñu ngi tàgg pommade miracle bi ñu ngi tàgg produit yow daal kon sa produit moom. macha allah kon yëpp nii la nit jaboot la gis nga hmm. au miracle baa ngi nii xam nga saafara bi moom hmm. macha allah au miracle bi ah, ah, booy bi moom nu ko nit ki def euh, ah, jaboot la jaboot dafa war a am ci biir këram boo tëddoon ba xaaju guddi am lu la jaaxal sa njaboot hmm. nga génne loolu jëfandikoo lii mooy au miracle bi boo ko yoree sa kër ku am bopp buy metti wala biir ku tëdd feebar kuy tiit kuy crise ku nekk en état wala muy matu bu sa yaram diisee wala nga santé ni nekkoo sax boo ko jëfandikoo yàlla da si def jàmm te booy def weer wu ne nga nga nga nga utiliser ko Mm-hmm. da lay musal da lay ubbi dañ koy def si Evian bu 10 litres. Mm-hmm. naan sangu 9 jours continuer di naan. njaboot yëpp di ci bokk nga denc lu la jaaxal nga dugal. am na sama benn. Mm-hmm. mais Maymuna Sarr Maymuna Sarr. xamoon nga ko mës nga ko jël témoignage Thiès mooy femme boobu di def action sociale nii ci daara yeeg yooyu. dafa gëm lii ba nga xam ne buy voyage sax da koy def si pochette am. nee na damaa wàcc Saint-Louis docteur. ci garage bi rek am kuy daanu crise foofu. nee na nit ñi wër ko ñëpp jaaxle. Mm. nee na mu ni may leen ma may leen ma ñu may ko rek mu bi au miracle bi def nii rek wicc xëpp ko ko nii. Mm-hmm. nee na même pas deux minutes waa ji jóg nee na nit ñi topp ko ndiraan soxna si ñaanal dal xam dafa dee waaw gars yi yi topp ko soxna mm. si kaay ñaanal ñu mun leen man kay ñaanuma dama leen di jox numéro mm. kii docteur Maodo Ndaw moo koy defar man xaw ma dara macha allah gànnaayu jaboot la daal ñaata la wecce ko deux mille cinq cent mm. dugg nañ ci yëpp de xanaa pommade miracle TGV bi xam naa échantillon bi ñëwul échantillon bi ñëwul TGV bi ñëwul waaw donc bi dermato bi la dermato bi la waaw ah. Mm-hmm. commande miracle TGV bi waa Cheikh yor na si benn waa mm. passe ñu ko rek commande miracle TGV pour wàllu kër moo tax ma defar ko nga mm. xam ni gaa commande miracle mii da mm. dox mais bu ñu jëlee gàncax yi dox si wàllu kër dëxañ ko si biir vraiment da am commande bu gën a doy waar mooy commande miracle TGV bi ñi nga xam ne dañuy gaaw a yegg wala ñu am faiblesse sexuelle wala ñu manqué appétit sexuel nga xam ne sax dañuy dem ba seen xel du si nekk dem ba sax tas ay sëy moo tax ñu defar commande miracle TGV di si dimbali askan yi li ci des rek mooy dermato bi dermato bi waaw pommade miracle dermato bi dermato bi moom nu muy demee mooy borom yaram yu ñaaw yi ñi nga xam ne borom yaram yu yàqu yi waaw ñi nga xam ne dañoo topp xeesal yeeg diw diw yu bon yeeg mm-hmm. savon yeeg ba seen yaram yi yàqu mm-hmm. moo tax ñu defal pommade miracle dermato mm-hmm. ñi ñëw jubbis stressé Mm. vraiment fu xamu sa kanam gi kanam gi yàqu nga nga stressé abonné leen Tektal TV abonné leen Tektal TV pommade ah. miracle dermato ngay jël ak mm. sirop miracle bi mm. ak huile miracle vraiment yàlla def si tawfeex macha allah donc euh, pommade miracle ah. TGV bi donc moo nekk nii rek ku ko soxla 5000 euh, lay lay jëlee ci ko Mm. ku ko soxla boo demee Tektal TV Tektal boutique wala nga woo docteur Maodo Ndaw rek incha allah dañ lay wax foo ko mën a amee mm-hmm. mi ngi dimbali nit ñi si seen wàllu kër macha mm-hmm. allah mm-hmm. macha allah baax a baax a baax a baax ah, docteur Maodo Ndaw dafa mel ni waxtu bi dam nanu de looy tàggoo bu dul tàggatoo ak koy sant ak euh, gërëm parce que waxtu di sant euh, suñu suñu ko suñu wëlëre bi nga xam ne rek moo ñu may opportunité pour ñu def émission tey di la sant Cheikh di sant technicien yi di sant sama di sant Ndaw Njaay doomu ndeyam vraiment macha allah nga xam ni dañuy jàpp si liggéey bi mm-hmm. di nuyu di ziar njabootu sëriñ Fadilu Ndaw yëpp mm-hmm. di nuyu aussi sama jigéen ñi nga xam ni ñoo jàpp si liggéey maire Kouta Ndaw maire Ndioro Ndaw mm-hmm. ak Soda Thiam vraiment Khady Diagne di nuyu waa Mbour waa ñiy jàpp si liggéey bi waa Touba soxna May Mourtala mm. soxna Ayda Si bu sëñ Mbay Si Mansour di ñaanal sëriñ bi yàlla fëgg boppam te defal ko gudd fan ko ànd ak di sant ñëpp di ziar ñëpp mm. di ñaanal ñëpp jàmm Cheikh macha allah mm-hmm. jërëjëf docteur Maodo Ndao di ñaanal euh, sëñ mu yàgg fi loolu tànn ko ak wér ak bépp kilifa diine di ñaanal président Ousmane Sonko di ñaanal président Diomaye Faye Sénégal euh, tege ci yoon daal ñëpp am jàmm bu baax a baax ku liggéey jariñu kuy tappale nag nga yëg ko daal bu baax a baax jaajëfal nañ euh, sëñ Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ko wér di jaajëfal président Ousmane Sonko di ko ñaanal président Diomaye Faye Sénégal yàlla def jàmm ak sutura ba ku liggéey jariñu ko liggéeyul tamit nga di tappale moom yaa koy yëg ñun toppatoo la na réew mi ànd ak dal bu baax a baax a baax yoon bu mujj ci biir émission balaa boobu nag ki ma habillé mooy euh, Julien Diémé empire de l'élégance euh, moom mi ci xar yàlla 77 8 783 29 03 moom Abiy docteur Madone ku Abiy sa bopp. man Gora Gora Gora <laughs> GB Couture Gora sama rakku jabar la. vraiment macha allah moom it. 783 29 lu rafet lay ñëw quoi. moom 022 56 76 77 022 56 76. empire de l'élégance euh, Julien Diémé gërëm nañ tamit ñëpp Eugène Ly Allemagne moom it d'enfant France Serfal Espagne Mohamed Ndiaye agent joueur gërëm nañ Malick jiite Grèce ak ñi bëgg Tektal TV bu baax a baax a baax yoon bu mujj ci biir émission bi 77 713 41 03 77 713 41 03 beneen bi 77 505 29 51 77 505 29 51 docteur Maodo Ndao nekk ci Thiès nga dis soxla mu def ko leneen ñu bàyyi yàlla mu xam tëlewul dara te mën a lépp yow mi ba mënul dem Thiès nag produit yi am na Tektal boutique Derklé wetu station xaar yàlla numéro bi 77 108 51 51 même boo woo tegtal la bu baax a baax nga xam fa équipe technique bi ñu àndal Mohamed Docteur Wade bu Casamance nekk ci borom këru Ganga Wade Baye Massamba Diop borom këru Mayna Baye Massamba Diop borom këru Maya euh, Cheikhna Diaw Inconnu Petit Sow borom këru Rahma euh, gërëm nañ ñëpp bu baax a baax a baax ñiy seetaan Tektal TV bu baax a baax a baax abonné leen soxna May Diop ci réalisation bi sëñ Fallou Mbacke Diop alaaji sa loxo Ndiaye soxna Seynab Diop gërëm nañ ko ak bébé Mohamed Diop ak nijaay Cheikhou Jaxate Dame Diop soxna Faat Jaxate xewal dikk loraa ngi dak jërëjëf docteur Mor Bienvenue, cher. Merci.